asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki Sénégal yi nga xamante dañuy nekk bitim réew di nuyu ñëpp di sant ñëpp fas yéene dikk ak yéen ci beneen waxtaan waxtaan bi nga xamante ne dafay ëmb Sénégal nu muy doxee jamono jii xam ni toll nañ ci ci débat politique boo xamante ni ci gàcceel askan wi la ñu nekk politiciens yi jàpp ñu di ñu ŋawti ŋawtee. ba tey sénégalais ci am njàqare nag lan coowal protocole de Rebeuss moo xam protocole A ak protocole B yaakaar naa ni ñun ñëpp déglu nañ ci kàddu yi nga xamante ni kii di Idrissa Seck yëkkati na ko mu nekk. ay gindi yo xamanteni askan wi ñu bari amna luñ jange, ci jange man de sax walu amna na lu ma jàngee ndax jànge naa si ni ñii nekk fi semaine bi yëpp amé sénégalais yi moom rajo yi moom nit ñi wuñu ci dara lu dul li nga xamanteni neex di Macky Sall di président de la république wuñu ci lu dul ut prox bi nga xamanteni fa la ñuy mën a jaar pour mën ko jege waa yaakaar naa ni nag président ak ñu ko wër bés bu ñu xoolee bu baax dinañ xam ne ñooñu yàqal ko moo leen tax a jóg parce que du ñu ay nit ñu baax du ñu ay royukaay du ñu ay nit ñoo xamante ne askan wi wóoru nañu leen ndax defuñu lulul di delloo suñu réew ginnaaw ndax ba ñëpp génne ci référendum yii ak coow lu mu ëmboon ñëpp dañu ne ay la yéwén léegi. sénégalais yi ñu a jublu ci liggéey ci ñaari at yi nga élection présidentielle ndax ñu concentré Sénégal mu jëm kanam mais defuñu ko ñu ngi tout le temps ay deal ay protocole ay coow yi nga xamante ne dinañu war a mën a euh, yenn jëfin yi nga xamante ne tey fi su mel libération Karim Wade bi nga xamante ni askanu yëpp moom lañ di du d'il. loolu tey moo waral dossier bi ñaan dossier Idrissa Seck di protocole bi nga xamul amoon na en 2006 si seen i wax ñu bëgg ko tegaat si table ngir rek mën a Sénégalais yi Sénégalais yi fàtte lu génnee Karim Wade ci kaso bi mais nit ñu comprendre nañ leen yow mii di nga xamante ne yow la yàlla def si bopp réew muy président de la république jamono ba ñuy jàpp Idrissa Seck yow yaa nekkoon premier ministre jamono ba ñu koy bàyyi yow yaa nekkoon premier ministre tey ba ñuy sulliwaati dossier boobu yow yaay président de la république. ay la yéwén kay yaakaar naa ni euh, xool asamaan jarul buuxante ak ku bëgg foofu fanaan ak ku bëgg ku la wétteel tëjal bundi war leen a boole Idrissa Seck lu mu wax ci bataaxalam bi leer na yéen yéen a yor nguur gi te kii détient le pouvoir détient l' information génne leen génne leen information yi ngeen yor coow li jaru ko coow li jaru ko. bu fekkee li ngeen wax dëggu la si yéen génnee leen ko ñu jëm ñu senegal yi xam seen xaalis yooyu ñuy tudd muy 74 milliards yi fan la dugg parce que fu mu xaj bari loolu mooy wax ji yóbbu leen mbir mi ci yoon ndax ñu ko seqoon ñëpp ñu ngi dund yow mi nga xam yaa nekkoon premier ministre nekkoon chef de gouvernement à l'époque yaa ngi fi dund ki nga xamante moo nekkoon ministre de la justice di Cheikh Tidiane Sy mi ngi dund ki nga xamante ne mooy ndeyu mbili Idrissa Seck mi ngi dund maam Abdoulaye Wade mi ngi dund. notaire euh, Nafissatou Diop Cissé mi ngi dund Ousmane Seye mi ngi dund avocat Idrissa Seck di Boukounta jàll mi ngi dundu dund Sidiki Kaba mi ngi dund mais lu ngeen bëgg dañu leen nit ñi ngeen ubbiwaat procès bi sénégalais yi xam du ñu mën a luubal suñuy xaay ba pare bëgg taxaw fii di di tànqal nit ñi kii lu mu wax dafa leer boobu ba tey mi ngi naan jusqu'à l'extinction du soleil du ngeen gis un centime bi nga xamante ni nee nañ la détourné naa ko te ba tey histoire laa donné am na fi non lieu total. te ba tey yéen ñu ko daan tumal ba tey leen ne moom moo moom moo ko di utiliser ay seen groupe de pression xawal groupe de presse ni ko mën a tuddee ngir mën a ngir mën a gàqal deru nit ki loolu politique yooyu politique yi salté dañ ko dépasser il faut faire la politique autrement waaye bu ay avocat taxaw fi naan woy wow dafa signé protocole bi nee na dina dina remboursé 64 euh, milliards dina dina joxe 7 milliards après mu jox waaye sereen 7 milliards après mu joxe yeneen 7 milliards loolu loolu loolu euh, nit ku lucide dina ko wax ci un avocat bi nga xamante ne yow yaa taxaw fi ne man carrément lu ma gën a sondal ci àdduna mooy sàngara nit ku lucide du wax loolu est-ce que ba ñu koy ba muy wax loolu mi ngi mi ngi mi ngi woon sa il faut poser des questions comme ça il faut que ñu laajte parce que nit ku ànd ak sagom yenn yi du ko wax Nafissatou job Cissé du notaire boo xam dossier yu gënal na ci Sénégal yëpp dossier yëpp ci cabinet am la jaar radio won nañ ko fi dossier yu gënal lecc la la wax bu gën ko gëssoo ci cabinet la jaar donc nit ñooñu nak nan nan nan la ñu war a mën a nekkee ay royukaay nan la ñu war mën a waxee nit ñi gëm ab réew boo ko yor da ko yor si jub nañ ko yor si dëgg ñi nga xam dañ laa digaloon di di yéey sa ba nga jël kari Wade duggal ci kaso bëgg nga ci génn mu tëla ci ay dil ak ay ay ay dil international si ngeen mujj pour Karim Wade génn ñooñu nekk lañu jël dugalaat la jayaat la ba nga jël nit ki di dem di wutaat benn prisonnier politique naan yaa ngi koy dugal ci kaso bi loo ci góobee na ko gar lu ngeen ci góobee na ngeen ko gar naka la ñu mën a nit ki 74 milliards ngay am ay problème location fi sa permanence fu mu nekk sax ñu génne la fa ndax ndax ndax ndax ñàkk fay lu yaas ay ay ay ay ay ay Omar Sarr nga xamante ne tey jii Abdoulaye Wade taxaw na wax na ko nee na ko yow Idrissa Seck loo dugg Omar Sarr la ci dugg ndax du ñu nit ñu baax du ñu nit ñu baax seen intérêt kese politique amatul ngor amatul éthique amatul moral loolu mooy ay cri ay ay ay ay valeurs yi nga xamante ne dañ ko suñu politiciens dañ ko perdre ku ci perdre nguur a tàggu nga sa sago. bëgg taxaw fi di gëmlo nit ñi ay protocole am na ay diw am na cinquante compte am na quarante compte dem leen ngeen génnee compte yi ngeen teg ko dem leen ngeen génne ngeen teg ko yaakaar naa ni kàcc yi nga xamante ni kàccoon nañ ko ci dossier war Karim Wade ak compte yi nga xamante ne ay compte fictif yi ñu doon créé fu nekk ñu créé ko ci àdduna gàcce gu wutee bu ngeen moytu moo leen di dalaat réew rambax yoru ko waaye bëgg lu neex président de la république mooy lu olof naan ku bëgg xaritoog pël bu mu la tax a booti sëll te ñii loolu lañ nekk def fàtte nañ ni lu ñu seqoon nit ki démb lu ko fi jar lan moo ko fi jar lu fi jar ñaawoo ndax xaalis boobu bu tey jii xaalis boobu nañu xool fu mu mën a dugg bu fekkee am na Idrissa Seck bu fekkee dafa jëw suñuy xaalis <laughs> nañ ko yóbbu ci kanam yoon. sénégalais yëpp xam nit ki mooy kan comme sax ëllëg dinañu dinañu mën a dimbali ba tey ñu ko waroon voté en deux mille dix neuf dinañ dinañ xam kan lañ amal affaire man de bëgg naa loolu ndax bëgg naa ko ma gindi ay ministre de la république taxaw di def yenn accusation gratuite yoo xamante tegoo ko fenn loolu dafa ñaaw ci réew mi dafa ñaaw te justice bi tamit dafa jot mu jël ay responsabilité am bañ ñu koy dugal ci coowal politique yi ku ko ku leen indeeti ay dossier politique nee leen ko dellu leen ko assemblée ngeen lijjanti ko foofu fii tribunal la dañu fa war a lijjanti ay mbirum yoon ndax loo fi atte ci kaw suuf ëllëg si yow yow yàlla suñu borom dina la ko attewaat ak la yow yow mooy xiyam tax ngeen ba kenn amatul confiance suñu justice su réew justice ba ñoom ñoo fa wax atteinte à la sûreté de l'État justice ba ñoom ñoo fa waxoon chantier ñoom ñoo fa waxoon ak yeneen ñoom ñoo fa delluwaat ne fi non lieu ku leen indilati ay problème politique ay dossier politique lijjanti nañ ko bàyyi ñee lijjanti ko politiquement nguur gu fi ñëw toog dina toroxal suñu justice bi te tey yi gën gënuñu ay magistrat tey magistrat yu gën a mag ci afrique sénégal lañu ñu jàngee ba pare yéen du ngeen joxe le bon exemple nañu jaarale mbir yoon sénégal réew yoon koy dox réew bu amul yoon du dox du jëm kanam yàlla sib na réew boo xam ne dañuy atte te du dëgg te te te teguñu ko si dëgg yàlla dëgg la bëgg suñu yent bi suñu roykaay dëgg la bëgg mais bu ñu indee dossier euh, politique ngeen taq ci rip bu ñu paree ñoom ñu dem lijjanti ko politiquement ba pare yéen yéen yéen yéen yéen ngeen desee coow li kenn wóolootu leen am leen seen fulla am seen fayda yéen da ngeen a jàng ñoom ba ñuy wut nu ñuy luubalee ci wàllum politique yéen yéen a yéen yéen yéen xotti seen tubéy ci baawu école yi di jàng yoon ngeen pare prêter serment kenn ku si yéen a ngi trahir seen serment yi nga xam ne dañ ko prêter woon. teg leen ci mbir yi yoon ku leen indi dossier politique na ko yóbbu assemblée nationale wala mu yóbbu ko ci pale ba ñu lijjanti ko fa gëm leen indi séparation des pouvoirs yéen ko war a gëm dëggal ko yéen yéen yéen yéen les acteurs dara gënul ñaaw tey ngeen ñëw taxaw jël nit ki condamné ko pare ñu dem ëlbatiku wan ko wal wal ginnaaw di ko di ko négocier ci suuf ban Sénégal la ñu nekk.

bakkañ kañ lan la ñuy def yàlla suñu borom ba mérité yenn njiit yi lan la ñu ko def diw nee na man man man man xaw ma Idrissa Seck xamaa nu ma ko parti réew mi kenn laa mu seet jàqaran bët muy Abdourahmane Diouf lu ko weesu xaw ma ci kenn du ma ko faral tey du ko faral ëllëg mais dañu xool luy yoon ñu taxaw di ko wax dafa bind benn lettre adressé ko au sénégalais képp ku ko lire am xel nee na ay kàddu bu dofee nopp yu koy dégg war naa wér dinañ xam ne kii lu mu wax am na fu wóor fu mu ko teg te dañ leen a joxoñ dañ leen a pointé le doigt ngeen war a ngindi sénégalais yi yéen yéen a yor nguur gi yéen yéen a yor procureur bi yéen yéen a ministre de la justice yéen yéen a yor yoon wax naa leen sànq ne kii détient le pouvoir doit détenir l' information. génne leen information yi ngeen am yépp ñu tegaat les choses sur la table ñu attewaat mbir mi mu leer sénégalais yi xam ku jël suñu xaalis xam nañ ku ko jëlul xam nañ lan la lan moo fi jar daw bay daal lan moo fi jar yenn yi ñaaw yi bëgg a yore nguur taxaw ne kenn du la critiquer ku leen critiquer ngeen génne benn dossier taxaw ne ci te yëpp te yëpp ay naru kase la

jamono fu mu toll nii lu jëmale réew kanam la ñuy wax nit ñi ka bu ñu leen posé ay débat wax leen loo xam ne day jëmale fexe leen argumenté teggi lu mu teg ngeen teg ko par des idées mais ku ñëw taxaw wax ngeen xoxatal ko tey ku nga xamante ne tey dafa ñëw sonn leen ngeen am nañ am amoon nga fi dossier bi di jël dossier yi di ko di ko armé wu def ko arme ñëpp xam nañu violence mooy arme de c'est c'est c'est mu des faibles foofu lañ toll tey. fofu lañuy tollu nañu delo ci xel yi delo ci xalaat yi xamni senegal Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xal ñaar wax yu ñaaw dara jaru ko fi def lu ñaaw jaru ko fi bu ñu amee naq ñun ñëpp ñoo koy bokk bu ñu amee bànneex ñoo koy bokk xool lu jëmale réew mi kanam ñun ñëpp Sénégal la bëgg Ousmane Sonko taxaw wax fi ñu ne ko wéy la ñu xool di ko xoxatal xool nuñ koy nuñ koy dàqee ñun ñëpp ay Ousmane Sonko ku ko laal di nga laal askan wi ku ko laal di nga laal askan wi ku ko affecté di nga affecté askan wi ku ko di nga rajé askan wi abdul mbay taxaw na fi wax ngeen nak ko woy commencé di ginaan ay dossier après ay sa ay certificat de mariage am na ngeen dugg ci idriss ak ñeu taxaw wax ngeen naan ko woy dossier chantier thiès yo xamanteni omar sa taxaw na fi ne idriss ak lu koy xaar xam nañ fi ak décembre dina dem dina dem kaso donc yeen yéen ngi koy waxtani seen bir yéen ngi ndax naar bu ndaw bi lu mu wax ci xayma ba la ko déggee ak ñeneen ñoo xamante ne j'en passe mënu ma ko wax am ñoo xamante ne dañoo préféré dem séddee jébbalu su ko jébbalu Sénégal nag doole yoru ko xooxalaate yoru ko xaat moo ko yor poser le débat amener des idées. ñu waxtaane ko pencoo ko loolu mooy yor réew di ay kaddu yi nga xamante bëggoon naa ko ci sànni dellu di jéggalu ñëpp di leen jéggal xam ne bu amee ay rëcc rëcc tamit ci man la maa ngi ciy tubli si jéggalu loolu moo nekkoon benn contribution sama xalaat moo bëggoon indi si débat bi nga xamante ni mooy lëmbe askan wi jamono ji ma bëggoon ci indi sama xalaat maa ngi leen di jéggalu yéen ñëpp di leen jox dig daje ba seen prochaine wasalaam jërë ngeen jëf